صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bokk na ngi am daje ci xéewalu yàlla ci sunu téere bi ñu tuddee Riyadu Salihin ngi ñaanal mbokk yi nga xam ni ñu ngi ànd ak ñun ci situ xam sa diine bi ñu nag ñoom ñëpp yal nañu yàlla defal lii di am njub te may ñu laafiya defale ñu ak ngërëmam àdduna ak alaxira ñuy yëg ci tey ci ñaar fukki lu bunt ak ñeent ci téere bi baabun baabu taxliidi uqubati man amara bi ma'ruf aw naha an munkarin xaalafa qawluhu fi'la loolu boo xoolee ci suufu xadiisu téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar loolu moo ci tegu kon incha allah loolu la ñuy jël tey war a commencé ci ata'muruuna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum
باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون سورة البقرة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون سورة الصف وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه سورة هود
kii kon bunt bi ñuy dem mooy baabu taxliid uqubatu man amara bi ma'ruf buntu taral lii nga xam ne mooy mbugalum kay digle lu baax aw naha aw munkar wala mu tere lu bon xaalafa qawluhu fi'la ba pare mu wuuti waxam ja ak jëkkam ja mu ubbee ci aaya bi sunu borom di wax ni ata'muruna an-naasa bil birri wa tansawna anfusakum moo ndax dañuy di digal nit ñi ci li nga xam ne mooy ak njëkk ci mbaax ba pare ngeen fàtte seen bakkan wa antum tatluuna alkitaab te yéen yéen a ngi jàng téere bi afala taaqiluun xanaa yéen du ngeen xellu suñ borom wax ba tey yaa ayuha alladina amanu lima taquluuna ma la tafaluun mooy yéen ñi nga xam ne da ngeen di gëm lu tax ngeen di wax loo xam ne du ngeen ko def kabura maqtan inda allah màgg na lool am sànji ni mer mu tar bi bawoo ca yàlla an taqulu ma la tafaluun ngeen di wax loo xam ne ngeen ko def wa qaala taala ixbaaran an Shuayb noonu la yàlla waxee di nettali la Shuayb waxoon xeetam wa ma uridu an uxaalifakum ila ma anhaakum anhu man de bëgguma di leen uutu te la nga xam ni maa ngi leen koy tere mi ngi noonu mbokk kon ñu gis ni ayat yi ñu jàng ba ca jëkk di suñu boroom di wax ndax da ngeen di digal nit ñu lu baax fàtte seen bakkan ñu ngi wàccoon ci ahlul kitaab dañ daan dajeeg leen ci arab yi di leen wax ne Muhammad day yéeneen ci yàlla moom na ngeen ko topp na ngeen ko gëm ba pare ñoom nanguwul na ñëw topp ko loole moo taxoon mu wàcc waaye yàlla subhanahu wa taala buy wax ba pare saxal wax ji ci téere yi daf koy jàngal ne lépp lu mel noonu rek day dugg ca lool loolu moo tax ba xiitu koo xam ne da ngay digle lu baax ca lu baax loolee doo ko def wala ngay tere lu bon ca lu bon loolee doo ko def ah da da nga cay nekk loolee da ngay gis ni sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ni kooku amul xel kooku amul xel moo tax mu ne ndax mu ngeen xellu ndax lu baax li ngay digle ndigalu yàlla la fay bu muy ma nga ci àddu lu bon li ngay tere melum yàlla la mbugal mu tar ma nga ci àddu yow nga xam ne lii su ma ko defee ñu fay ma lii su ma ko defee ñu mbugal ma ba pare nga diglu ko te doo ko def moo tax suñu borom ne xanaa yéen amul yéen li nga xam ne mooy ay xel loolu nag tamit war nañoo jàngal mbooloo mi it ne nekkate dindi lislaam amul lu ñuy tudde borom sañ-sañ amul lu ñuy tudde borom sañ-sañ masalan ñun da ngay gis ko gis benn sëriñ gis ko muy naan sàngara gis ko muy def yu bari mais da ngay jàpp ne moom sañ na ko nga jàpp ne sañ ne ko loolu nag mbir la moo xam ne mbokk suñu diine ji gannaaw suñu yonente muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yàlla ci maslaha da'wa am na ñu néew a néew yoo xam ne moom la ko dagalal ca dagalal lu ko ci ñun loolee bokk na ca bari ay soxna waaye gannaaw loolu abu bakar yu saddiq ak boole ni saxaaba ak ñi ñëw bi la yomi diin ñoo yëm ci diine ci képp koo xam ne da ngay def lu bon yaa koo mën a doon yéene yëpp képp ku bàyyi lu baax yaa koo mën a doon yéene yëpp loolee ñu bàyyi ci xel bu baax nga yor benn sëriñ bu ñu lay daw loo xam ci ñi di takkay jawar yu bëri mu ne ah ñaar doo ma koy def de ak saay saay wala borom sañ-sañ mbokk loolu mbir la moo xamee ne nii da ngay gis ne ñu bari cee ñun jàppe sëriñ dañoo jàpp ne ay sañ-sañ la waaye sañ-sañ boobu kenn kaa moom muy suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolee kon di mbir yoo xam ne dañ ci war a bàyyi xel borom bi it wëlbati ko waat ni waaw yéen ñi nga xam ne da ngeen ne gëm ngeen ba pare lu tax ngeen di wax loo xam ne du ngeen ko def màgg na ci yàlla ngeen di wax lu ngeen dul def te mooy merum yàlla dana taw ci yéen heure bu ngeen waxee mbir ci mbir mi def leen ko loolu nag bokk na la ci jiitu mooy di diglu lu baax diglu lu baax julli dafa war a julli te yow doo julli julli wul ko sàcc te da ngay sàcc julli wul lekk riba te da ngay lekk riba ila axiri mooy kon yaa ngi wax nit ñi loo xam ne yow doo ko def loolu nag suñu borom mu ne merum yàlla dafay aju ci loolu allahuma loolu it jullit war naa góorgóorlu lépp lu mu ne dinaa ko def rek mu def ko lu dul ñàkk koo def gën mu def ko masalan sonoon dinaa def nangam nga wëlbati bi gis na loolu kat bàkkaar la wala dog mbokk la loolu même bu doon da nga caawaat billahi jiw dootuma teg tànkam sa ci dootuma teg sama tànk gërëm nga wax loolu xattaa nga waat ci sax su sa xel dellu see kaffaaraal sa nii da nga def loolu ala kulli xaal lépp loo xam ne du moo ko def war na wér sa xol jamono bi nga koy wax ne fas yéene woo ko def lépp loo ne dinaa ko def war na wér sa xol ne jamono bi nga koy wax fas nga yéene ne dañ ko def te loolu la ñuy wax ne Ali ibn Talib benn waay doon na ko tagg na ko yow loolu digga def ko mën na ko déedéet lu ma déggee fas yéene naa ko def yéen loolee kon di mbir boo xam ne dañ ci war a bàyyi xel borom bi subhanahu wa taala yi mujjee kii di Shuaybu alayhi salaam dafay tere xeet bi la nga xam ne moom lañ doon def ci peese bu bon ak di leen alalu nit ñi gaa yi ko yéen commerçant comme ñun li ñuy tereel sax mën noonu yaa ngi koy def Shuaybu ne leen déedéet tereel moom ma leen mbir ngir ëllëg man ma wërbati ko di ko def déedéet loolu du ma ko def mukk ca mel ne rek médecin bi tere malade bi mu tux ba pare moom wër bati ko di tux du ma la tere loo xam ne dañoo dama wër bati ko di ko def muy wane it ni bépp yarkat war na bàyyi xel loolu mooy ah, yow mi nga xam ne yaay yar njaboot ji la nga bëggul njaboot bi def ko kay bu ko def ñu xam ko bari na ay borom kër yu bari yoo xam ne xam nañ ne nangam ak i nangam baaxul ñi ngi koy tere seen njaboot ba pare di ko def nan la ko njaboot gi di bàyyi comme niñ koy waxoon suñ bindi bi passé ki nga xam ne dafa gis ak i waaraate juy waaye nangam baax na nangam bon na ëllëg mu gis ko muy def lu mu doon tere day jàpp ne waaraate ko yëpp ñu lañ mel loolee kon day nekk benn danger boo xam ne da ngay yàq bu ko ëpp moo tax su ay bu na leen fas yéene mukk fas yéene mukk li ma leen tere ma wër bëri ngeen gisoo ma di ko def mi ngi noonu ci ayatul quran yi
وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الضحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه متفق عليه قوله تندلق ومعناه تخرج والأقتاب الأمعاء واحدها قتل
sunu xadis téeméer ak juróom-ñeent kon juróom-ñett ci téere bi mi ngi jóge ci an abi zayd usaama ibnu zayd ibnu xaaris ki nga xam ne mooy usaama bokkoon koo xam ne ko yonent bi bëggoon la bëggoon bàyyam ba zayd radiallahu anhuma yàlla yàlla gërëm na leen yàlla yàlla qaal wax na mu ne tamit rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man de maa déggee yonent bi alayhi salaam di wax ne yu'ta bi rajuli yawmal qiyaam dees na indi benn góor keroog bi su pénc fa yulqa fi naar ñu sànni ko ci biir sawar fa tandaliqa aqtaabu batni mu daal di doon luy tasaaroo la nga xam ne mooy butit ya nekkoon ci biiram génn tasaaroo fa yaduuru biha mu nekk di wër ci guddi bi yooyu kama yadul ximaar fi raxa comme na mbaam di wëri ca wolokaay ba arab yi dañ daan def li ñuy tuddee moyen yooyu xeer bu rëy ñu yett ko léegi dañuy jël benn xeer ba benn dañuy jël dañuy yett ci biir ci la ñuy def dugub bi am beneen xeer bu rëy bu ñuy teg ci kaw takk ko ci benn bant léegi takk ko ci benn mbaam mbaam bi di wër su ko defee xeer bi ci kaw noonu ñuy broyé noonu ca la ñu daan wale dugub ji di jam sunguf loolu moom la ñuy tuddee li nga xam ne mooy riha bu ko defee fa yajtamiu ilayhi ahlu naar fa yaquluun ci noonu la waa sawara ñuy wër ko ñu ne ko yaa fulaan malak muy mu xim la ñeen alam taku ta'muru bil ma'ruf wa tanha anil munkar ndax yow mi ko woon dañuy digal lu baax di tere lu bon fa yaqulu bala mun a ana kay qad kuntu amur bil ma'ruf wala atihi man dama daan digal lu baax di daw mu ko def wa anha am munkarin wa atihi dama daan tere lu bon ci dama ko daan def mu dégg ca li mbokk yi di xadis bu tiitlu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na benn waaye ngi ci adduna ku nit ñi xame woon fu mu toll di déglu lu baax di tere lu bon malaaka yi jàpp ko sànni ko ci biir sawar te noonu la suñu borom waxee waa sawara dañ leen fii sànni kullama ulqiya fiha fawjun sa'aluhum xasanatuha dañuy sànni gaa yi dañ leen di lem comme bal fa yuqas bin nawasi wal aqdaam jël seen karaw yi jël takkale ko ak seen i tànk ci gannaaw sànni comme bal buy dal ci sawar te daan jàng ci kanam yi ne ci bàyyi sam ne xuutaay ba dara dox dox juróom-ñaar fukki at su ko defee bu naan dellu ci sawara bunt bi day tas tasaaro muy wëral bunt bi yooyu waa sawara ñëw ci moom waa jiw yow xanaa ci du jiw loolu du mu lay jàngal waa sawara dañuy ànd ak seen xel te mbokk loolu tax mbugalu sawara di métti doomu aadama bu doon ci àdduna la dëgg yi mbugal bi am na fu mu yegg nga teqali ko ak sa xel mi ngi noonu dootoo yëgati la nga xam ne mooy xew amma sawara suñu borom yàlla mi dogal du ñu dee comme waa àjjana du ñu dee noonu la dogal seen xel bu teqali ko ak ñoom ak mbugal ba dañuy sax sax yëpp su ko defee duñ koy wër mu xanaa bi du diw yow yaa doon diglu lu baax di teru lu bon mën na am am na ñuy rëcc ak yoo xam ne ma topp diw mu ne waaw loolu lépp am na waaye lu baax la ne leen daan digal dara laawul ci daawul def lépp lu bon li ma leen doon digal dama ko doon def li ma leen doon tere dama ko doon def ca loolu kon moo tax ba maadaama ci àdduna dafa siiwe woon di wax lu baax te du ko def suñu borom yàlla toroxal ko ci kanamu waa safara yëpp toroxal ko ci kanamu waa safara yëpp te loolu it mbokk mooy dëppoo ak payam ba nga xam ne moom la amee woon muy mbir boo xam ne nii xadis la ah bu titlu boo xam ni ku ne war na góorgóorlu bàyyi xel yal na yàlla musal ñu ci.
باب الامر باداء الامانه قال الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها سوره النساء وقال تعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سورة الأحزاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم
bunt bi nekk ñaar fukkeelu bunt ak juróom ci riyaadu saalihin mooy baabul amri bi adaa'il amaan bunt digle ci joxe la nga xam ne mooy kóolute قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها yàlla day ñu leen di digal ngeen delloo kóolute yi te ña nga xam ne ñoo ko moom wa qala taala inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibal gaara nañ kóolute asamaan yi ak suuf ak montagne yi fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha ñu bañ ci daal di koy gàddu daal di tiit ci gàddu loolu wa xamalaha al insaan innahu kaana zaluman jahula waaye ki nga xam ne mooy nit moom gàddu ko moom nekk na at yi tooñ nekk na at yi kuy réer amma xadis bi ci tegu di téeméer juróom-ñeent fukk juróom-ñeent an abi hurayrata radiallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل يجب عليه السلام نينا آية المنافق صلاة من ذاك بني رمي نافق نيتلا إذا حدث كذب أربي وقت يفن وإذا وعد أخلف أربو أمي دي ديك دي وأبدلم ودي أبدلم وإذا تؤمن خان أربو أمي ني ولو منكم وورو am na beneen riwaaya buy wane ne même wa in saama wa salla wa zaama annahu muslim même bu dee ngay jullee ko woor te jàpp ne julit la loolee da ngay gis bu nekkee ci moom du ab julit mbokk kon ñu gis ne sunu boroom day wax ne lii di kóolute yàlla mu ne delloo leen ko ña nga xam ne ñoo ko moom loolu i tamit da ngay gis ni ab jullit da ko war a bàyyi xel ci lépp la ci jiitu muy alal waa ji wóoru la dénk la alal wóoru la lebal la alal loolu lépp da ngaa war a góorgóorlu ba fexe ba delloo ko loolu nga xam ne dana ca wóoru woon léeg-léeg waa ji ak njaboot la lay wóoru ma ngay tukki wóoru la ci njabootam am na koo xam ne ci ay wax la la wóoru ay secret yoo xam ne wax na ko sa digganteeg yow loolee kóolute la waroo koo war ci loolu bokk na ci loolu diggante jëkkër ak jabar jabar am na yu bari mënu ko nëbbu jëkkëram kóolute moo tax mu feeñ ko ci loolu jëkkërit naka noonu mu bokk góor gu yées góor guy def di weer la nga xam ne muy secret jabaram jigéen bi yées jigéen bi dem di weer secret jëkkëram loolu ñu bàyyi ci xel mu am nag amaana bu gën a gaaw te moom la nit ñi gën a soofantal mooy li ñuy tuddee dernier public mooy loo xam ni mbooloo nekk moom dina mele directeur tel ministre tel nga am loo xam ni douze millions de sénégalais ñoo ko bokk yow lu jël ko jàggati ko loolu di ngay gis ni ci yi gën a gaaw ca la bokk waa bi sax am na ñuy tudde ay haute trahison te boo defee loo xam ne da ngaa trahir loolu nit ñi yooyu yëpp kon ay amaana la yoo xam ne jur dafa war a góorgóorlu war a bàyyi xel ci loolu suñu borom yàlla mu ni li nga xam ne mooy responsabilité tëral aw yoon ku ci jaar mu gërëm ko tàbbal ko ak janna ku ko mooy mu mbugal ko tàggal ko sawara proposé woon na ko asamaan yi ak suuf ak montagne yi ñu ne ko ay yàlla jéggal nu attanuñu loolu bàyyi ñu ñu jaamu la ci coobare rek te bañ laa moy xam ngeen suñu borom du mbind asamaan ak suuf nee na nee na leen ittiyaa taw an aw karha xaalata atayna taiin ay yéen asamaan ak suuf kaay leen ngeen topp samay ndigal mu neex leen ak mu naqari leen ñu ne ko yàlla ñu ngi topp say ndigal ci mu neex loolu nag la ko yàlla joxe doomu aadama aadama ak njabootam ñu gàdd responsabilité amaana boobu te amaana boobu mbokk mooy ñaar yàlla may na la xel yónni ci yow yonent ku amul xel yàlla dénk ko daal bu ko neexee di julli bu ko neexee di woor nan na nan sàngara yàlla dégg ko dara amul xel amaa soo xisee ba am xel amaana yàlla jox na la ko léegi nag yónni ci yow yonent mu xamal ne lii la yàlla bëgg lii la yàlla bëgg suñu borom yàlla nag nee na la ëpp ci doomu aadama yi nekk nañ ñoo xam ne ñu réer lañu nekk nañ ñoo xam ne ñuy tooñ lañu tooñ nañ seen borom bokkaale moom tooñ seeni moroom jàngati seen àq loolu seen bopp lañ ko waroon a taxawee ci jaamu yàlla nga leen di jëriñ àdduna ak àllaaxira jëfuñu ko jahulan zaluman jahulan loolu da ngay gis ne borom xam-xam yi dañ caa génne ni illa alladina amanu wa amilu salihat sun borom yi naan laqad xalaqna al-insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin waaye illa alladina amanu wa amilu salihat inna alladina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin ulaika hum sharrul bariya waaye inna alladina amanu wa amilu salihat ulaika hum xayrul bariya ña yàlla di ŋàññi fii mooy jahul zalum ya bokk ci doomu aadama yi amaa ñi ci am ngëm gu wér ci jëf lu baax ñooñu bokkuñu ci loolu ñooñu la yàlla gàdd ci ñoom ci pas-pas bu sell gëm nañ ko jaamu yàlla yom leen teg ci jullee koor ak aj makk ak zakat def nañ ko lam leen tere ci bàyyi sàngara njaaloo rey nit bàyyi nañ ko ñu mel noonu da ngay gis ne ñi nga ànd ak gërëmal yàlla yàlla na yàlla boole ñu ci ñooñu loolu yi tamit yeneen ci bàyyi nekk salaam teg ci benn hadis boo xam ni nattuwaay la pour yow nattuwaay la pour société bi ngay dund naa def jafe naa xam nifaaq mooy koo xam ne li ñuy feeñal ak la am bokkut da ngay gis ne ah ñu ngi dugg ci janax yi li nga wax nafaqa soo demee suñu àll yële ñoom Cheikh Ndiaye ñu koy xam mooy dëppal mi ngi noonu ah bilal tam yaakaar naa yàgg nga loolu loolu mooy booy ganax bu ñëwee di gas fii te loolu mooy wane xikma borom bi subhanahu wa taala bu ñëwee di gas pax fii day gas pax bi bu demee ba ci biir mu gas sa benn pax boo xam ne léeg-léeg du ko gas ba mu génn da koy gas ba commencé gis gant bi bàyyi noonu léegi mu dugg ci pax bi heure bu ko dara dee fekk ci pax bi wala dara di ko daax mu dugg ci pax bi yaa ngi dem ci pax bi fekk moom tax na fa ne génn ne dem na bu yàgg yaa ngi dégg ba nay kaw ñu daan dugg ko janax ñu ma sànn dugg ci pax bi dañuy def benn cercle pour fan la war a liggéey bu génn rek ñu koj ko noonu it mooy naa jox dalay wax lii fekk la mu lay wax ak la muy dara def dara rëbëgu ci loolu tax yéen ci bi ne mandargaal bi njëkk bu waxee day kat lam la xeli kese loolu mbokk buñ demee ba nit ñi bàkki ko ne ci xanaa du diw boobu lu mu la fen la mandarga naa jox ko ñaareelu mandarga bi mooy forcé ay dikk na doon ka ngay liggéey di loolu ka nga jox rendez-vous la ka nga digoon la loolu lépp dagam yéefiri tubaab yi léeg-léeg ci ñoom ñooy wax naan la promesse est une dette kon digge bor la comme ne ko waral di waxe yi koo xam ne nii nag la mu digge dara ci lu def diwala ko dig ah loolu day si jarul ko ci def sa xel kooku mbokk mandarga naa ci bokk na loo xam ne lu dangereux la mooy nit ki buñ gisee mu fonk rendez-vous la naan dafa tubaabe ndax diggu leen loolu ak ruslu ak ruslu boo demee sunu mbokki arab yi dañ naan boo leen joxe yi dañ naan arab yi am injilis yi ndax dugub dugub arabe la wala dugub anglais la mais li seen borom xam-xam yi dañ koy ñaan pour ñoom anglais yi ñooy ëpp seen bi or que problème bi dañ moo ko waral ñoom dañoo ñëw noot suñu réew nekk fi ay kilifa nekk minorité toujours ñoom dañuy doon ñu correct ci respecté seen i dig waaye yeneen masse jullit ñi nga nekkal ña koy jargat yi tax na ba nga jàpp ne yéeféer moo gën a fonk dig jullit sax lu mën na nekk abadan waaye yéen loolu mu ñuy jàngal yow jullit da ngay xam ne jullit doomu ci kaw suuf moo am juróomi rendez-vous ci ci bis bi kenn ku dul jullit amu ko juróomi rendez-vous jullit rek ko am muy waxtu jullit juróom heure boo xamee ne nii jël nga nit ki rendez-vous dégg nga nit ki dañ ko jox dara na nga diggante sa borom waxtu jullit juróom bés bu ne nga jox ko ko ka nga waxoon dañ ko joxe bu liggéey bi paree dinaa la fay ah kay liggéey ne weer fin du mois dina pare ngan la waay yéen ñëpp da ngeen di respecté seen kàddu amaa bu saxee ba nit ñi xam ko ci yow mandarga naa jot la beneen bi mooy dugg ci bunt bi ñuy jàngale mooy amaana mooy koo xam ne luñ ko dénk luñ ko woo luñ ko wóoloo mu daal di woo te loolu mbokk da ngay gis ne ay danger la yoo xam ne bari na lool ci suñu réew yi te bokk na li ci gën a siiw mooy ci wàllu bopp ñu bari sax ñu wetu ñooy lebbe léegi te moo di ne ni nit dañoo wax la lu toy xit keroog ba nga ko joxee keroog nga ko gëj a dégg keroog nga ko gëj a gis loolu mbokk ay njuumte la amaana la sunu borom mu ne fal yu addi la dina la dina tubina amaana dahu wala yattaqillaaha rabba sunu borom nee na boo digganteeg benn waay boo ko ragal moom bul jàpp ne moom du ma wax dara bon jàpp ne dara waaye ragalal sa borom bi leen bokk seede am déet wala yattaqillaha rabba loolu la yàlla subhanahu wa taala wax loolu nag yeneen ci bi alayhi salaam nee na képp ku ngañu ci moom lu mu wax day tag lu mu diggaw ah daal di jalgat yi bañ ko def luñ ko wóoloo mu woor nee na même boo ko gisee muy julli même boo ko gisee muy woor xamal ne kooku am naa ci yàlla na yàlla musul ñu ci nifaaq
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنه ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجد كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضربه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعه لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي سعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا متفق عليه قوله جدر وهو أصل الشيء والوقت الأثر اليسير والمجل وهو تنقط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره قوله منتبرا مرتفعا قوله سعيد الوالي عليه
kon xadis bi nga xam ni mooy ñaari téeméerlu xadis ci sunu téere bi mooy xadisu xudayfa ibnu lyaman radi allahu anhu qaal xadatana rasulu llahi sal allahu alayhi wa sallam xadisayn yonent bi day wax nañ ñaari waxtaan ñaari xadis qad raaytu axadahuma gis naa benn ba وانا انتظر الاخر ما يخار بكدت حدثنا ان الامانه نظرت في جذر قلوب الرجال نينا دي ليغا خن موي كور دي دا فا واتي كلانا خن موي تساو خول كور ثم نزل القران فعلموا من القران جناب القران واتي نلاني خم جلج القران وعلموا من السنة خم جلد السنة ثم حدثنا عن رد الأمانة قلنا بموقتا من يمكن كل جدا مسجد فقال مني ينام الرجل نومة بين قول بين نلو بين نلو فتقبل الأمانة من قلبي ينادي جل كل جدا بالقلم فيدل أثرها مثل الوقت la nga xamee ne mooy jeexitalu kóolute googu wëlbatiku mel ne loo xam ne nii benn jeexital bu ndaw buy des ci biir xolam ñu ngi noonu moom lañu wax naan al asru yasir jeexital bu ndaw buy des ci biir xolam su ma yanaamu naw gannaaw mu nelaw beneen nelaw fa toqbalul amaanatu min qalbi ñu jëlaat tuuti ci ca xolam fa yadullu asruha misla asaril majj mu daal di def jeexitalam nga mel ne jeexitalu madal madal mooy soo dee liggéey ci sa loxo ba liggéey bi am ay daar daar loolu la ko arab di wax mu ne sa jamono yi dafa tegu alal jëlika mu ne mi ngi mel ne benn xam boo ñëw daal di koy fël ci sa tànk fa nafita fa taraahu muntabira wa laysa fihi shay ci noonu lay daal di ne xuy yi tàkk nga dëkkam ñu daal di jóg daal di ko fa defee aw xam boo ko fekk mu doon nga football ko mi ngi noonu dara du dafa desati summa axada xasarata fa dahrajaha ala rijlayhi ñu ne loolu bi mu koy nekk nii ñu ngi jël la nga xam ne ni moom mooy benn xeer bu ndaw daal di koy sër ci tànkam bu dem bu boobaa nag fa yusuuhu naas yetabaaya'uun nit ñi daal xëy di jaayante falaa yaqaadu ahadun yu'addil amaana kenn du nekk di xaw di joxe la nga xam ne mooy kóolute xatta yu xaal ba baa nit ñi di wax naan inna fi bani fulaanin rajulun aminan soo demee ci famille kenn day am na fa góor gu wóor xatta yu xaal li rajul ba jamono ñoom ñuy wax ne maa adraka maa adraka mu moom ak a am jëmm moom ak a taaru maa a fara ak réewum xel waaye maa fi qalbihi misqaalu xabbatin min xardalin min al iman fekk boo xoolee xol ba lu toll ne fekk dugub ci ngëm sax nekku ci wa laqad ataa alayya zamanu mu ne man de ñëwoon na ci man ay jamono wa ma ubaali ayyukum baayaxam daawuma xalaat di faale ala kan laa jaayante ci yéen la in kaana musliman la yurdannahu alayya diina bu dee dafa nekk julit dana ko delloo si ci man mu jox ma sama àq diine wala in kaana nasraniyan aw yahudiyan la yurdannahu alayya saa'ili heure boo xam ne nii nekkoon na yahud wala nasaraan dana delloo si ci man ka nga xam ne mooy kilifaam nga féetewoo moom ci julit ñi wa amma yowm waaye gisa tey bi fa maa kuntu ubaali'u minkum du ma nekk di jëflante yéen ci njaay illa furaanan wa furaanan xanaa lu dul diw diw mi ngi noonu mbokku xasayte bi raman ne loo saaxibu sirr mooy borom secret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ya naafiq yi melokaan woon moom la ko yonent bi doon wax moom ngeen dégg na Omar ibn Xattaab bi ko yonent bi alayhi salaam waxee naafiq yi nekk Madina ñu nekkoon lu jege fukki naafiq ak ñeent Omar nee na ko maa ngi lay waatloo ci yàlla Huzayfa bàyyi yonent bi boolu ma ci naafiq yi Xusayf na ko déedéet waaye yéen maa ngi waat ne bis na ki tey dootul ci setal beneen julit ala kulli xaal loolu muy wane ne Omar ibnu Xataab mi nga xam ne gannaaw Abubakar ibnu Sadiq mboolem ñi gëm yeneen ci bàyyi salaam moo ci gën mooy ñaareelu lislaam moom mooy ragal mbaa bokkul ci nañ tëtti waxuma ñun fien su ko defee Xusayf boobu mu ne man de yeneen ci bi wax na ma ñaari wax benn bi gis naa ko te it beneen bi dana ñëw balaa adduna bi benn bi mu gis mooy lan mooy nee na yàlla wàcce woon na góor ci xolu góor ñi avant ñi xam alquran te mbokk soo demoon ci société yi nga xam ne diine yeggu ko fa dañ fa fekk ay nit ñu wóor ñoo xam ne duñu woor mukk te it alhamdulilah mbokk suñu réew yi avant tubaab bi ñëw di yàq suñu jikko suñu maam yi quatre-vingt-dix pour cent ci ñoom xamuñu lu war a wóor ci am déet waxi fenn waxi wor wax mu deñ beneen daan dara sax xaw gis ngeen am naa nag tubaab bi ñu ngi indil ñu politique te dañ ne y a pas de moral en politique mi ngi noonu lu lu neex waay wax lu neex waay duural nit loole ne na kon avant alxuraan bi ñoo xamoon nañ léegi nag alxuraan ñëw nag ñu gën a jàng ci alxuraan xam ne dañ daan def mbirum ceddu ndekete yàllaa ko léegi sunna ñoo feddili ko waaye yéen ci bàyyi salaatu wasalaam nee na daal dem jamono ñëw nit nelaw benn nelaw yàlla jël góorute ci xolam ba jeexital bu ndaw fay lu tuuti day wóorati daal dem ba nelawaat beneen nelaw mu mel ni yow mi fekkoon benn xalu safara bu nekkoon fii nga fot barko mu dem ay ay yeewu benn góorite lu def ci xolam te loolu ngir fitna yii dana am avant bis pénc dañ ci bàyyi xam ne ne fitna dana tar bis pénc nit ki danay xëy nekk jullit piir balaa ngoona mu nekk yeefeer nit dana fanaan nekk jullit piir balaa suba mu nekk yeefeer muy wane ndax fitna yu tar yu am yeneen ci bàyyi xam ne ne kon noonu lay noonu la lay mel ba nga xamee ne nii dañu dem ba communauté boobu dootul des ci moom lu dul koo xam ne daanu liggéey nga dajeeg moom gis loxo yi am ay gamb mooy am ay daar daar loole nga xam ne kii day daara jaar ci liggéey ko ñu kóolute moom lu ñu xam mooy ku wóoroon la am maa léegi moom kóolu gi amuñu ko jeex na su ko defee yonent bi alayhi salaam ne nit ñi daan koy di jaayante kenn du gis koo xam ne koo mën a wóoru la ba di la bàyyee say affaire ba ngay gis ay nit ñu mën a gis koo xam ne borom dimb ju rëy la borom taar bu rafet la borom xel bu rëy la waaye fekk ne biir xolam ba dara ci ngëm nekk fa gaa yi lu tax yeneen ci biir seen kër yi yeneen ci mu ne laa imaana li man laa amana tana koo xam ne amoo kóolu te amoo ngëm looloo tax ba yeneen ci bàyyi salaam bi ne xol ba ngëm nekku ca waaye képp ku gëm yàlla da nga am kóolu te nit ñi daañu wóor nga seen ngëm yàlla toll loolu kon mi ngi noonu
وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنه فياتون ادم صلوات الله عليه فيقولون يا ابانا استفتح لنا الجنه فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء وراء أعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمز البر قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا رواه مسلم قوله وراء وراء معناه لست بتلك الدرجة الرفيعة وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم والله أعلم
bokk xadis bi ñuy jàng xadis yi gën a siiw ci lay xew yowmal qiyaama ca la bokk ci koy nekk li ñaari sahaabi lañu xudayfa عن ابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس يلا دي دنا دجل نيني مولا سين فيقوم المؤمنون حتى تغلق لهم الجنة جلد نتحو بل جيجل لن الجنة فيأتون آدم صلوات الله صلوات الله عليه فيقولون ñu dikkal bàyyi aadama ne ko ay yaa abana istaftih lana aljanna pour sàkkul ñu ubbee man mën a dugg aljanna fa yaqulu wa hal axrajakum min aljannati illa xati'ata abikum aadam mu ne ndax génn mu leen aljana lu gën a xati'atu abikum seen bàkkaaru bàyyi aadama te moom boppam lastu li saahibi raayi man koy duma waaye loolu mukk idhabu ila ibni ibrahim xalilillah dem leen ci sama doom bi ibrahim ñi xal ci yàlla qaala fa yatuuna ibrahim fa yaqulu ibrahim noonu lañu dikkale ibrahim su ko defee ibrahima ne lastu bi saahibi zalik innama kuntu xalilak min wara wara mu ne man duma loolu nekkoon naa xarit yàlla waaye nag nekkoon naa ca gannaaw gannaaw ay nekkuma koo xam ne am naa daraja am sañ-sañ bi ñaan yàlla tey i'madu ila Muusa alladi kallamahu llahu taklima dem leen ci Muusa ba nga xam ne yàlla wax naag moom aw waxin fa yaqulu Muusa fa yaqulu lasti bi saahibi zaalik ba ñëwee ci Muusa mu ne man dama waaye jooju de ku ñemee taxaw di ñaan yàlla tey idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruuxi moom mi nga xam ne mooy ka yàlla bindoo ci kàddoom ci kun fa yakun aw muy ruux boo xam ne gaba woon ca yàlla fa yaqulu isa lastu bi saahibi baari mu ne man day duma waajoo ju mukk fa yatuuna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa yaquumu wa yu fa yuzan lahu noonu lay taxawee yàlla jox ko ndigal wa tursalu al amaana wa rahim fa taquumaani janbay siraat janbatay siraat yaminan wa shimala yàlla daal di yónni kóolu bi ak li nga xam ne mooy ak mbokk ñu ñëw nekk ci boori siraat daal di koy séq kii ngay jor kii càmmoon fa yamuru awalukum kal barq ah le jiitu ci yéen romb mel ne melax kunti bi abi wa ummi mu ne maa ngi wax di jote sama ndey sama bàyyi ay cheyin kamalul barq mbir nan lay nekk di romb comme melax qaala alam taraw ila albaq kayfa yamurru wa yarji'u fi tarfati ayn xanaa gisulee ci melax bi ni muy demee dikk ci benn xefekkat bi tumma kamari riix gannaaw ba am ñuy romb mel ni ngelaw buy romb tumma kamari tayr gannaaw ba am ñuy romb mel ni picc muy naaw wa shaddi rijaal noonu la nit ñi jógee di dox tajridihim amaaluhum muy doxe ci ñoom seen jëf yi ku nekk sa kéem sa leen jëf ci kaw suuf noonu ngay jaare ci kaw siraat wa nabiyukum qaim ala siraat seen yonent yàlla moom da nga taxaw ci bopp siraat yaqulu di wax rabbi sallim rabbi sallim yàlla musalal yàlla musalal xatta tajiza amalul ibad ba baa muy dem nekk di dal di lottuloo la nga xam ne mooy jëfi jaami yépp ku nekk la nga xam ne moom mooy sa jëf moom moo lay jàppale ba nga mën a jàll fa ngay jàll xataa yaji a rajulun fala yastatiu sayri ila zahfan ba sax nit dina ñëw du mën a romb xanaa lu dund dafay raam ci kaw siraat wa fi xaafatay siraat dana nekk nag ci ñaari côté siraat ya kalaalif kalaalif mooy buum goo xam ne dafa am weñ buy lonku ca kawam nga xam ne gaa yi yéeg ay ñii dañ ko jël sànni ko mu jàpp ci ñii bi ñu ciy yéegi loolu yi bu doon sunna amee ñu nekk ca teen yi dañ koy gis ak lugat yooyu nag mooy nekk ci bopp siraat mu allaqa suñu borom wéegu ko fa bu ko defee mamuratun bi axdi man umirat bihi mu doon ku ñu jox ndigal ci mu jàpp ni yàlla subhanahu wa taala digal ñu jàpp leen fa maxdushul naajin da nga ko gis koo xam ne wéñ yooyu dafay xoos waaye teewul dina mën a mucc wax ci siraat wa magduusun fi naar ak koo xam ne nag moom dañ koy këf tàbbal ko ci biir sawara والذي نص أبي هريرة بيدي ما دي واتك نيا خمنا لخا بكر أبي هريرة من كلقم قعر جهنم لسبعون خريفا ليخوت أي سفرة من من دوغ جروم نيار فكي أك ngay dox doogay li ci xóot ay sawar mbokk kon xadis bi xadis bu siiw la riwaay yi ñu koy waxee léegi dana wuute doonte ne riwaay bi day wax ni yàlla indi na la nga xamee ne nii mooy àtte yowmal qiyaama gis nañu ne yéeféer yi ñoom dañ leen di jël sànni biir sawar amma julit ñi yàlla jël àjjana te fële daal di indi sawara jaare la ci digg bi jël benn pont bu ñuy wax siraat teg ci kawam loole yi borom xam-xam yi am na ci xilaaf ñii ne nañ aw yoon la ndax loolu arab xam ci siraat donte ne am na hadis yu ñuy daliloo ne déedéet lu sew la comme jumhur am na riwaay yu ñuy wax donc ñetti junni ak la wallahu a'lam ala kulli xaal siraat yàlla teg ko ci kaw sawar te nag léegi jullit ñi ci dem ngeen aljana dem ngeen aljana ci noonu la ñuy gis doomu aadama yi avant ñooy dem ci aljana jooje sunu borom yàlla subhanahu wa taala dana leen nattoo nattu ci ñu toog lu yàgg di xaar di xaar di xaar ba mujj ñu ne waaw te ñoo sàkki pexe ci bi ñun kat nan seeti sunu bàyyi aadama bi ñu demee ci aadama alayhi salaam mu ne àddina bi ñu ngeen bëggoon dugg xanaa xamu leen ne man maa leen fa génne ci bàkkaar boo xam ne dama ko def kon nan laaj ñu ngay ñaan yàlla tey doonte ne bàkkaar bi yàlla baal na ko mi ngi noonu bàkkaar bi yàlla baal na ko ko loolu it moo tax ba noo ko xam dañuy wax ne léegi am na ñuy firee falamma aatawhuma saliha jaala lahu shuraka fi ma aatawhuma mooy yàlla di wax ni dañoo bëgg ëmb seen soxna dafa ëmb gannaaw ba ba mu amee doom ñu daal di koy ut bokkaali am ñu jàpp ne aadama ak hawa ñoo doon def fu ñu amee doom rek mu dee seytaane ñëw ne leen da ngeen ma koy tuddee su ngeen bëggee mu dund tudde leen ko abdul xaalis léegi ñu mujj ko tuddee seen benn doom loolu borom xam-xam yi dañ ni shirk la shirk bu mag bu doon benn yàlla musul ci ambiya yi duñ def loolu ñaareel bu bu doon aadama loolu la def kon loolu lay lay ndax loolu gën a garaaw lekk gam leen ci garab bi dem leen seeti ibrahim ibrahim moom it ba mu ñëwee mu ne naa am ma day xalilu la la waaye nag mbir mi ñàng na ñàng boo xam ne samay dara li yëggul ci ñaan ko yàlla dem leen seeti muusa ndax moom yàlla dinañ wax ak moom ci àdduna kon moom mën na wax ak yàlla tey biñ ñëwee muusa ne déedéet loolu du suma mbir soo demoon ci yeneen riwaaya Ibrahima day wax ne damaa fenoon ci yàlla naa ngeen di fen Moussa day wax ne damaa reyoon nit comme la Aadama wax dafa nekk ca garab ga léegi dem nañ ci Isa ndax Isa sunu borom mu ne mooy kalimatuhu mooy bu mu sànni ci Mariam waroo kan minhu biñ ñëwee ci Isa Isa moom waxul benn excuse ci ne def naa nii wala def naa naa waaye lu mu leen wax dem leen ci muhammad loolu muhammad rek moo ko man mbokk bala ñuy jàll ci muhammad ñun liñ jàkkee sunu sëriñ si fii ne yomal xiyaama bu ñëwee dañ fekk ñu taxaw seen gramme ba gars yi kaay leen ñu ñëw mooy dinaan yàlla yàlla na ko mu naan yàlla yàlla na ko mbokk yomal xiyaama ku ne su bopp ngay tax yeneen ci yëpp dañu wax nafsi nafsi am na yeneen riwaaye soo demee aadama bu waxee ni bu pare bi naan déedéet nafsi nafsi sa bopp laa tax ibrahima dalal nafsi nafsi sa bopp laa tax loolu kon ku ne war cee bàyyi xel su ko defee bu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi jóg yàlla jox ko ordre jox ko ndigal ci mu ñaan yàlla su ko defee moom mu ñaan yàlla yàlla daal di may doomu aadama yi ñu war a jàll siraat dem tàbbi ji la nga xam ni moom mooy aljanna sunu borom yàlla day indi kóolute responsabilité teg ko ci côté siraat indi mbokk teg ci côté siraat képp koy romb ca jargati woon kóolute kóolute bi dana yàlla dii de ku ma jargati la woon te loolu ma ne laa tàbbal sa waa képp ko ja romb fekk da ngaa dox say mbokk mbokk ne yàlla dii de ku ma dogal la te yonent bi alei salaam nee na mbokk yàllaa ko jëlee ci turam ku dox mbokk yàlla dox la loolu di mbir boo xam ne jar a bàyyi xel la nit ñi di jàll groupe ba jëkk a jàll nit ñi sax na jàll nañu dañuy mel ne mel a xesal këppi groupe ba ca topp dañuy mel ni ngelaw ñu rëcc beneen groupe ba mel ne ay picc yuy naaw ba da nga gis ñoo xamee ni bu ñuy jàll dañuy raam dañuy raam am na ci ñoo xam ne jëf ban jëf tàbbal na leen sawar jëf ba mënu leen a yeggale dañoo mujj daal suñu yeneen alayhi salaam mu ne yàlla ngi ci def ay ronk yoo xam ne ñu ngi ci sirat jullit ñi dañ koy romb sans problème mooy ñu baax ñi mais ñu sàggan ñi danañ ñoo xam ne daal romb waaye fekk xotti na seen yaram lu bëree bëri avant ñuy jàll dem sirat maanaam jàll sirat dañu am jàll am ñoo xam ne bu ñuy bu ne leen nëkk leen di tàbbal ci biir sawara waliyaadu billah comme ni ngeen ko yàgg dégg am na jullit ñi bari ñi ndax dem aljanna waaye bala ngeen dem aljanna daañ tàbbi sawara sawara lakk leen ba mu des lu ndul place yi ndul sujud gis ngeen loolu nag yeneen ci bàyyi salaam nee na su boobaa moom ma ngay taxaw ci bopp siraat di ñaan yàlla ay yàlla musalal sama xeet ay yàlla musalal sama xeet waaye nag mbokk ñaan moom ak ñaan rek la yàlla seet lam ko lam ciy nangu su ko defee dina am ñu bari ci ñaanu yonent bi yeyoo woon nañ tàbbi sawar waaye yàlla musal lii ñu jàll yàlla yàlla boora ñu sax waaye am na ñoo xam ne dañ def garaaw na ba ñaanu yonent boobu ñu ko ñu tàbbi sawar gis ngeen su ko defee kon loolu la yonent bi alayhi salatu wasalaam wax ci loolu léegi nag abi hurayra nag di nettali ci sawara boobu nu mel nee na ku cee tàbbi day boo jógee ca kaw bala nga yëg ci suuf danga dox juróom-ñaar fukki at waaw gars yi loo xam ne bala ngaa dal rek dox juróom-ñaar fukki at buñ la di génnee ndax loolu mu jàmm la wallahi mu jàmm su ko defee dañuy gis koo xam ne dana def sawara juróom-ñaar fukki at téeméeri at junni at lu ëpp loolu avant que yàlla di génn di tàbbal ak jara su mënte ne ab jurit la amma bu dee yéeféer la mushrik la kooku moom ci jahannama lay sax xaalidina fiha abada yal na yàlla jiital ñu suraat tabal ñu aljanna musul ñu ci mbugalu adduna musul bàmmeel musul bis penc wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad